waaye itam maire commune bi nga xam ne moom tey jii fa la ñu wàccoon dañ ko war a gis mu taxaw mais bu fekkee dañoo siisu ba ñëwuñu taxaw bu fekkente ne bëgguñu gouvernement bi def ay réalisation bu fekkee ni seen xol neexul ci gouvernement bi ak fulla ak yitte gi mu jox askan wi ak population ba mu demoon seeti bu fekkente ne ñoom loolu lépp mënuñu ko dékku wala sax mënuñoo teg na le seen ay ay ay situation politique seeni ay Euh, tactique politique seen calcul politique yi mënuñu koo teg ne ngir jàkkaarloo ak population bu Sénégal bi ngir jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy état ànd ak ñoom ci population boobu dama naan seen liggéey des na te Ousmane Sonko tey wax na ko su ko neexoon tey mu dem fa en tant que homme politique ñëw taxaw di wax ay ndaka sa kandang bu ko neexoon mu dem fa xam ne ñii kat samay opposition la euh, parce que jamono jii ñuy wax ak yéen le maire de la ville donte ne ci Yewwi Askan bi nga xam ne Ousmane Sonko moo faloon ñu bari bari bari ci gox goxaati fii ci Sénégal ci jamono jooju bu fekkente ne moom Ousmane Sonko bokk na ci ñu ko jàppale tey ba mu jël ville bi ville bu Ndakaaru tey daf ko won ginnaaw c'est un opposant bu fekkee wax na ak waxul yëpp Barthélémy Dias c'est un opposant c'est un opposant politique bu régime actuel bi parce que loolu la waneegum te fi ñu gis euh, gouvernement bi jëm fa du ñoom ñoo ñoom ñooy retourné waat ñëw joxaat ak loxo ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz parce que doxul ci jéego yi gisuñu ko mu dox ci lu lu lu jiitu élection yi ak lu wees élection yi te moom Ousmane Sonko bañ na ko ba tey dafa teqerñe li nga xam ne moom mooy homme politique bi ak homme d'état bi parce que bu demee ba naan maire bi sax waroon naa ñëw le maire de la commune waroon nañ ko fee gis mais dafa ne ci ay yitte sax veut dire que kooku ñëwul en tant que opposant su fekkente ni tamit le maire de la commune mu di Abdou Aziz pay ci bañeeru yeewi askan wi la demee woon ñoom ñoo ko fal tey jii maire ndax Abdou Aziz Paye yéen ñii su ma leen ko waxul doo leen ko xam am na ñu bari bari ñoo xam ne nii xamuñu ne moom mooy maireu Fass Colobane xamuñu turam am na ñoo xam ne ñii may seetaan ci yéen am na ñoo xam ne xamuñu nu mu mel. donc tey jii su demee tey jii ba dem ci bañeeru yeewi askan wi gañe loolu nga xam ne moom mooy mairie boobu dafa war a delloo naar ba xoromam parce que jamono jooju ku ne xam ne ni yeewi askan wi ca ba muy metti lool lool Ousmane Sonko daa taxaw fëgg nanam taxaw ci kanam jàkkaarloo ak obstacle yi fi nekkoon yépp jàkkaarloo ak régime bi fi nekkoon ak seenu seenu mbonte ak lépp lu ñu doon def ngir fal ay maire te loolu ñépp nangu nañu ko ngir fal ay maire Barthélemy Diaz mii ci la bokk muy le maire de la ville waaye itam Abdou Aziz Faye mi nga xam ne mooy le maire de la commune de de Fass Colobane boobu ci la bokk donc tey waroon nañoo jël seeni ay calcul politique waroon nañoo jël lépp loo xam ne nii lu ñuy lu ñuy calculer ci wàllu politique teg ko ne ngir wuy si l'état ngir wuy si Ousmane Sonko mi ñu ko séqaloon démb ngir ñëw affronter la population ak ñi nga xam ne ñoom ñooy état am na ci lu bari bari loo xam ne sax doon nañ leen ci yóbbaale parce que mënuñoo demal seen bopp bu leen Ousmane Sonko bàyyi woon rek ñoom ak ñoom jamono jooj ci communes ak ville yi ñu gagné. donc ça veut dire que tey dafa dafa dafa ñëw tenir benn discours boo xam ne daf leen a wan ne leen fii dootul ay mbiru opposition dootul ay mbiru politicien mbiru Sénégal la su ko neexoon tey du toog di tudd le maire de la commune. donte ne tuddul turam mais def na allusion à lui nee na maire de la commune le maire de la commune euh, waroon na teew xëy na dafa am ci lu mu jàpp moom moo tax ñëwut mais ñoom ñoo fa jaay paañ ñoom ñoo dox ci lu ñu war ta dox ñoom ñoo def loo xam ne askanu Sénégal dootuñu fàtteeti histoire politique bu Sénégal tey bi Ousmane Sonko génnee jàkkaarloo ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy askan bi nga xam ne ñoom ñoo ëmb wala ñoom ñoo bokk di dund ci kolomaan mënoon ngeen a marqué seeni ay point ngir daw fekk fa état mais su ko neexoon tey moom Ousmane Sonko mu ñëw en tant que koo xam ne day opposé wu ak yéen taxaw fëgg dënnam daal leen na kat damay wax ak yéen parce que ay opposant ngeen damay wax ak yéen parce que gëmoo leen ñu damay wax ak yéen parce que da ngeen a jóg pour yàqal ñu mais dafa ñëw taxaw jox leen orma wane ni fii politique amu fii wane ni fii état moom moo taxaw fi nekk nii te état mooy ñi bëgg askan wi dem ñi askan wi jiital état boobu moom mooy tey jii de ñi ñuy war a déguerpir muy les marchands ambulants muy ñi defoon occupation anarchique ci Colobane mooy les riverains muy ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk biir Colobane ñoom ñëpp ci état lañu kon mënoon ngeen a ba yi seen calcul politique yi. Barthélemy Dias mënoon ngaa profité tey ñëw mënoon ngaa def jéego bu njëkk sa diggante ak état bu Sénégal parce que nag bul fàtte ne dese na la fi pour nga occuper mairie de la ville bu Ndakaaru te boo fi bëggee nekk di giita ngaas ak état bu Sénégal boo fi bëggee toog ci mairie de la ville bi di di di jox jox ak état bu Sénégal doo réussir sa sa li nga bëgg a def te état bu Sénégal lu ci bari bari bari muy le gouvernement mënuñoo tëb. le maire de la ville def yeneen ak yeneen parce que soo ko wax na ko tey su ko neexoon mu ne ñun état lañu am nañu doole am na ñu dayoo donc képp koo xam ne ñu dañu lay jël teg ne sànni la ne non non daf leen a jiital ci ay waxam. parce que nee am na loo xam ne du compétence su état mais compétence ñi ñu fi falool la ci commune yi ci ville yi kon jox na leen seen gëdd. yéen nag profité leen man ma may wax a yéen amul benn leçon de morale bu ma leen di jox mais damay wax a yéen profité leen ci loolu ngeen gaaw ngeen joxante ak état loxo sinon boo leen ko deful di ngeen dóor seen loxo ci ëkk. bu fekkee nag da a bëgg a jeexal politiquement tamit yéen a xam bu fekkente ne da ngeen a jàpp ne état bi su réussir yéen seen seen fayit la kon. toog leen ngeen ngeen croisé ni ay loxo te ngeen xam ne la woon won ni na parce que nag sénégalais yii bu ñuy falati dinañ xool ñan lañuy fal moom Abdou Aziz Paye ni ki démb bërki démb fan yi yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy dégg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy population boobu nekk ca ca Colobane la moo tax tey ba nga déggee ni état day ñëw génnoo mais ñoom ñëpp suñu génnu tam gis nañ le préfet de Dakar bi nga xam ne dafay mandargaal ñoom ñëpp seenu présence muy le maire de la ville muy le maire de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane gis nañu ne préfet boobu ànd na ak état te préfet boobu ci état la bokk te xam na ni lii du ay jëfi politique mu ànd ak ñoom ñëw ngir teew ci kanamu askan wi te loolu mooy wareefam donc ñu convoqué leen ak ñu ñàkk leen a convoqué ak lépp lu mu ci mënti doon boo leen déggee ne le premier ministre dafa war a wàcc def ay acte politique def li nga xam ne moom mooy jàkkaarloo ak askan wi jàkkaarloo ak ay li nga xam ne mooy obstacle yi da ngeen a waroon a profité ngeen wàccaale yow Abdou Aziz fay li nga bëgg mën nga koo am ci kaw nga tafu ci ginnaaw état li nga bëgg mën nga koo am ci kaw nga nga nga xam ne état kat nii lay doxee te yow da nga da nga bokk ci état. donc loo jàppoon yow waroon nga koo bàyyi puisque yaa ngi xëqante ak ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy ambulant yi ak ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy jaaykat yi bu fekkee ne da ngeen a jàpp ne li leen di bàyyi ci seen ci seen communes yi li leen di bàyyi ci seen ville yooyu ngeen occupé tey nekk maire yi bu fekkee ne da ngeen a yaakaar ne ñi fay ñëw ci ay ambulant kat ay dëkk ak dëkkaat la ñuy jógee ci biir région yi donc ñoom ñiy ñëw foofu bokkuñu ci électorat bi nga xam ne mën nañ leen a fal ëllëg moo tax ngeen ne nañu satisfaire besoins yi ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi fay yeewoo ngir ëllëg ki si biir ñu dénkaat ñu seen yaakaar bu fekkente neen loolu mooy seen politique wala loolu mooy seen xalaat ndax ngeen seen bopp parce que bari na ci bari na ci bari na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ambulant yooyu ngeen ne dëkkuñu fi ci région yi lañuy ñibbi après euh, am ñu benn yoon électorat bi lu ñuy wàllu ci ci Colobane ak yeneen ci yeneen yeneen ci ay ville wala ci ay commune ngeen di ngeen bëgg leen a xañ seeni ay droit ñoom tamit xañ leen seeni ay ay ay ay lu ñuy suturloo ci rek ne yéen a nekk ci yoon politiquement tam ngeen koy def dóor ngeen seen loxo ci ëkk parce que gis ngeen état tey ni mu def wane nañu ne population bi donte ne am na ñoo xam ne du ñu nekk ci dëgg mais du question da ngay ñëw forcer leen laa mais du question da ngay ñëw ne leen par force li ma bëgg da koy def waaye kat da ngay naxtaan ak ñoom. da nga leen di jëlee ci point A yóbbu leen ci point Z da ngay da ngay ñëw ci li nga xam ne nii moom mooy waxtaan ak ñoom dignement fièrement waaye tam waxtaan ak ñoom ci def leen ay nawle. boo yaakaaree ni aussi da ngay jàpp ne non population bi bu ma ñëwee defante ak ñoom noonu xëkkante ak ñoom nangu ak nangu nangu ci ñoom li nga xam ne moom mooy euh, li ñu yor. ci lu ñu yor ci comme lu mel ni occupation anarchique ak yeneen ak yeneen non pour ma jaxase leen ak état defoo leen luy yoom defoo leen lu ñuy xaar ci yéen jàppale woo leen état te it li ngeen def moom mooy lu dul dëgg du yoom Ousmane Sonko wax na ko. nee na dinañu fexe ba collectivité euh, euh, euh, territor territori territoriales yi ñu fexe nañu jàkkaarloo ak ñoom waxtaan ak ñoom parce que nag bu fekkee da ngaa bëgg a defar il faut nga waxtaan ak couche yëpp il faut nga waxtaan ak ñëpp pour nga trouver terrain d'entente pour nga trouver consensus pour nga trouver ne du neex du yomb parce que bu Barthélemy Diaz xàllee jaar ne le maire de la commune de Fass Gueule Tapée Euh, euh, Colobane xàll jaar ne ñoom ñëpp ku ci nekk di xëccu politiquement chaise ba nga toogoon nga bëgg ëllëg ak sibir ñu tegaat la ci tax ngay kii état du sorti donc ma ne Ousmane Sonko en tant que homme d'état tey li mu affronté xamu ko sax sorteem bii mu def xamu ko sax mais tamit jëmmal gi mu jëmmal taxawaayu njiitu réew mi yónni gi ko njiitu réew mi yónni. daf ko wane daf ko jëmmal mais tam wane gi mu wane ne man ñi nga xam ne dañu bokk ci tey sama gouvernement ñi nga xam ne dañu leen a yaakaar tey euh, euh, euh, ñu ñu ñu defal defalal askan wi ci yenn ci ay département wala ay bànqaas yoo xam ne dafa dafa bokk ci état te état war cee liggéey ngir lu lu ci lu askan wi gis mu ànd ak ñoom te xam ne ñooñu mooy seen chef wan leen ne leen lii mooy terrain bi fii laa leen yaakaaree ci lii ngeen war a ñëw dama naan. askan boobu dañu war a am ak cant am ngërëm waaye itam am ak yokk ak dolli ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement bi waaye le le PM en commençant par lui mais bu ñuy wax ni couche bu vulnérable bi nga xam ne moom la ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko demoon seeti tey muy ñi nga xam ne tey jii ay taaba taaba lañ ay baana baana lañ seen yoxo jotu seen gannaaw loolu moo tax ñu jóge dëkk ak dëkk ngir ñëw ci biir euh, marché yi ngir taaba taaba ngir ut lu ñu am bu jàkkaarlooweek ñooñu ba pare waxtaan ak ñoom ci dëgg ak fulla wax leen ne leen li ñu leen di waajal ñun état bis bu ñu leen fa yóbboo na ngeen bàyyi fii ngeen toog occupation anarchique bi na fi jógee parce que Sénégal mënut a doxee noonu ngeen dem ci li ñu leen yóbbu. déjà wax ji close na bis bu leen bis bu leen yóbboo ci loolu amatuñu lu ñuy waxati parce que ñu mel ni ñun ak ñi nga xam ne ñoom ñooy am. Euh, euh, vidéo yi dinañ ko génnewaat ne leen ba ba mu waxee dañ la d'accord mais daf cee daf caa jóge dem ci population bi nga xam ne nii aussi ñoom ñooy saay-saay yi ñoom ñoo xañ askanu Sénégal seeni ay milliards yu ñu waroon a tabaxee ay marché ngir occupation anarchique bañ a am ñoom ñoo xañ askan yu suuf si nga xam ne fa la ñu waroon a tabax ay marché ngir occupation anarchique bañ a am ñoom ñoo dem ci littoral bi dagg ko jaay jaayaat ngir dugal ci seeni ay poche ngir gën a enrichiru ngir gën a doon ay millionnaire war voire ay milliardaire population boobu tamit nga xam ne ñoom ñoo yàq dundinu askan bi son ko dem na ci ñoom mu di ñi fi nekkoon état wax na ak ñoom donte ne yàgg naa wax ak ñoom waaye tey dafa gën a génnaat wax ak ñoom ci dëgg ak fulla wax ak ñoom ci loo xam ne nii nag comme du ni mu ko waxee ak population bi nga xam ne ñoom la ñuy woowee couche bi mooy ñu seen loxo jotu seen gannaaw ni mu waxee ak ñoom ci njëkk ak teraanga dafa dafa jóge fii ci jàmm ak salaam jóge fii ci li nga xam ne moom mooy teraanga wàcce boppam suufal boppam waaye ba mu demee ba fee dafa leen ne wan ne état dafa am loxo bu diis a diis a diis état dafa am ndëgër laay état dafa am fulla ak fayda état dafa am lu ko war te lu ko war du ko wàcc te mooy jàkkaarloo ak yéen yi nga xam ne yéen a fi nekkoon sàcc sunu alal sàcc sunu suuf jaay yéen a fi nekkoon xool li nga xam ne ni askanu Sénégal war nañ koo dundee ngeen foqar ci ko ci ñoom jël ko yéen yéen kese kese kese kese moom ko bokk ko di daw ak moom muy yéen ñi dem dagg littoral bi Anse Bernard ku ne xam na ni même su fekkente ne ñun nekk nañ bokk nañ ci ñi nga xam ne mooy la jeunesse bi nga xam ne xëy na lañu ca dem bariwul parce que bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy euh, màgg ak bi ñuy nekk ay ay euh, adolescent fekk nañ Anse Bernard daanaka ñu yàq ko surtout ci nguuru Macky Sall bi parce que ñun su suñu xàmmaliku ci politique suñu xàmmaliku ci ci biir Sénégal suñu xàmmaliku ci côté yëpp yëpp yëpp day tombeek nguuru Macky Sall moo tax lu bari bari bari bari ñu mën ko cee wax lu bari bari ñu ñu ñu jàpp ne histoire bu ñu ñëwee tey di nettali ëllëg lu bari lu ñu mën a nettali ci nguuru Macky Sall lay doom parce que moom nañu fekkee te ci lañu ñu dund am ci conscience xam ne lii kat. lii mooy nguur lii mooy état lii ak lii ñu def baaxul ak yeneen ak yeneen donc ñooñu nga xam ne tey ñoom ñoo dem Ange Bernard yàqoon ko ñoom ñoo xooloon Ange Bernard Ange Bernard mu nekk plage boo